waaw di laajte taf di laajte di laajte rappeur yi ñii di ñu suggérer ay rappeurs ñii di ñu suggérer ay gars yi nga xam ne dañuy freestyle xam nga ñëpp ñu ngi leen di béggee bu baax a baax a baax di leen wax ne temps yëpp da ngeen gis ñuy def euh, mini concert ci télé bi euh, tey moom dañuy bàyyi mini concert ba mercredi prochain ah parce que mini concert bi ñu def gars yi apprécier nañ ko bu baax a baax a baax dañ leen doon wan ne mun nañ yeneen facette xam nga te waaw di ngeen gis yeneen yoo xam ne sax ñoo gën a garaaw incha allah mini concert bi. Euh, mais tey dañuy dellu ci plateau bi parce que dama am ay jeunes yoo xam ne il faut ñu waxtaan ak ñoom ci hip hop Galsen parce que def nañ fee affaire bu jaar nañ fu nekk dafay affaire mais ba léegi dañoo man bokk man man en tant que DJ Taf xam dama gis yenn affaire yu ndaw te il faut ñu waxtaan seeg ñoom xam nga après beneen yoon bu ñuy ñëw ci mini concert ñu ñëw parce que hip hop bi moom ñi fi nar a jaar ñëpp bëri nañ mais ñi ngi jaar ñëpp di béggee ko tàmm defee rek dañuy def rubrique Euh, ngeen xool ñan ñoo nekk ci plateau bi ñu dellu si waat léegi léegi Babacar bu naay see rek nga jox ñu ko quoi jaajëf. man ci yow laa miir tànn la seen biir. sonn naa tay naa nam naa la ba mu wax. la gën a jege bu ñu xamoon nga toll si man du ñu nangu nga sori teranga jël jëmu ji teral ma def ah. ma ji teranga kon ku si dugg teral nga jëlal sama jëm maa ngi nii def na lu gën si man naka yow mooy li gën si man dugg naa si yow ñu bari génn si man te wul ma doon yaa ngi gën si man si man Simama, na umma kamni yake ta simama, simama, simama. yàlla nañu yàlla dafa lu ñu bëgg si ko xel bu dal ba mën ko dalal lu mu gën a bëgg di ko sant di ko bégge di ko gërëm di ko màggal di ko jaamu doon baakaar yu mu rëdd poste dis ba bee su tis ba pee send ibalay suñu noonee mu ñu bëgg di justice ba fii su crispect jëfe gis ba mis ne islam mooy bu mu dëgg yam la jaam yëpp mu suñu takk ndeer ndafu leer gi tàkk jotee ñun mën a jaam jóg dox jëm ci jaam ko juum duñu jëm les yoonu ay yàlla ngiroo suñu baat suñu jikkay tey rataxal suñu taw xit rafetal suñu bio samba aar suñu gonay tey daf leen ay mag yu am ñam ba ñëpp di leen jiroo booy géroo dugg biro faj coono yu mu weesu koo noom am bulo from zero to hero ga dictionnaire doo ci gis ñàkk ak amuloo yàlla gën a dolli feex nañu texe bëri pexe mën a def ak jafe-jafe dëgg dunia dama aimé sexe tëbal union unisex yaa rabana musul ñu pexe dina rabina a tëla loxo Carlos silimelu jàngoro duñ ko jànkonteel dund ba dem di wëri malaakal maw yes sir uh-huh. yes waaw di bëggee di leen bëggee bu baax ah, di leen wax ne gis ngeen ñooñu la uh, on a Ndobin moom moo njëkk jaar vidéo am après ñu am Pacas ñoom ñoo nekk ci plateau bi ñaari gars yoo xam ne xam nañ leen bu baax a baax a baax ci concours flow xam nga dinañ am nañ question yu bëri bëri yu ñu nar waxtaan ak ñoom mais dañ leen di bàyyi ñu nuyu ndànk rek ma dem ndànk rek ci bac as mu nuyu gars yi nuyu askan bi nuyu téléspectateurs yi. waaw. asalaamaaleykum Mbadou ma lay euh, mm-hmm. ma awoon tuuti rek ma xool waaw man maa nelaw nag. waaw ma taal micro bi waaw. waaw je pense mu ngi cool ah. waaw mu ngi cool waaw. ok salaamaaleykum. xam nga di jëtaf maa di nuyu say téléspectateurs et téléspectatrices de Africa 7 FM comme rajo di ziar sama doomu ndey confrère Ndobin yee di nuyu suñ waa site di nuyu sama waa label Advice Music yee di nuyu waa Sika Mbaaw di nuyu waa Mbirkilaan di nuyu waa Kajaando ah gann sax bul xool si jëmm ji mais ci luy génn ci xel bi rek mun naa ne quoi ah kon nekkul ci looloo gën a diis sax li nga gis si jëm bu naroon diis. Ah, waaw loolu nañ ci xam dara léegi. incha allah jaajëf ñu tourné ndànk waaw Ndobé ñu ngi lay ziar. yee salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum adduna wóoluwaa euh, maa ngi nuyu ñëpp bépp téléspectateur képp ku suivre Africa 7 euh, ak ñi nga xamante ne ñu ngi via internet di nuyu waa Yëmbal Boune Fass Mbao Dakar Sénégal nuyu waa Grand Médine xam nga Tivaouane Peulh waalo sama village di nuyu Kasinka Empire meen yëpp xam nga euh, Tim Lo bin Forxos Gang Jéeg Ibrahima Record label bi xam nga di nuyu sama gars yi le manager Tamsir Babs Aliou Kal xam nga Mariama Kari ñi nga xamante ne daal ñoo nekk ci ginnaaw jànkee ñëpp quoi di nuyu tamit sama waa secteur bu baax a baax parce que aw ma aw ma leneen lu dul gars yi quoi gis naa support bi maa ngi si ñëpp yes. waaw gis nga ils sont là euh, Bac As euh, yaa si Ndobin euh, deux jeunes yoo xam ne ñu ngi leen xamee ci flow up xam nga xamee leen foofu ñu génn ci concours bi mais dafa am benn affaire boo xam ne il faut ma laaj leen ko ñoom ñaar avant may avancer ndànk-ndànk yéen ñaar tase ngeen final ou bien. yes ah? tase ngeen final. si ok kan moo jël final bi. Ndofène yaa ko jël. Hmm. léegi final bi nan ngeen ko dundee woon parce que dégg naa final bi dafa àndoon nag ay saafara rab bi lay gaar yi def ay saafara dañuy def takk ay téere non sérieusement ay jeunes ngeen ay xale ngeen. xam ne dañuy waxtaan loo xam ne sérieusement ak yéen hmm. dégg ngeen affaire yooyu. du hmm. dégg ngeen ko. mais est-ce que dund ngeen loolu est-ce que sénégalais dañuy dund loolu parce que j'aimerais bien ñu mooy li mu leen wax sànq rek. bu émission bi neexee rek day neex. Mhm. si yéen yaa ngi ko mun neexal man j'ai j'ai j'ai que des questions à poser yoo xam ne gars yi dañ koy doon wax ci biir flow bi. Mhm. mais est-ce que loolu dund ngeen ko est-ce que loolu am na wala dañ ko da ngeen ko jël naturellement wala da ngeen fa ñëwee naturellement comme ni ngeen fa doon ñëwee. ok mhm. lan moo gën a important ci concours. je pense bu gars yi di gis li nga xam ne moom moo nekk des choses yu nekk derrière quoi. ok en fait y a d'abord le talent de l'artiste quand même bu mu ñëw exposer quoi. est-ce que yaa ngi dégg. et y a tout un public bu fee ñëw seetaan. peut-être y a yoo xam ne nii ñun bu ñuy gën di dem dinañ découvrir expérience bi nga xam ne moom moo ci nekk quoi. ok mhm. mais bon pour affaire de ay am na ay xon affaire yooyu noonu. peut-être public bi ñoo ci attardé wu mais tey jii. Mhm. ku ne xam ne ni ku tàggu say mbokk tàggu say quoi koñ. gën na leen maa ngi dem jongante boo xam ne dañ cee teg juróomi million. Mhm. au moins dina yëkkati ay dog na la na la yàlla sàmm. waaw bu fekkee nag loolu mun nañ ko jàppee saafara. dafa ni saafara aussi bu wóor mais ku nekk tamit ba ngay génn sa bu nit ñi dinañ la am yéene bëgg nga gañe ñëw na la am defal lii jël ko lii ak lii jël ko lii ak lii jël ko voilà naturellement man sama position noonu laa ko doon jëlee quoi. ok noonu nga ko dundee yow nan nga dundee affaire bi. comme lii Bac As di wax ah, mhm. man mun naa ne flow benn euh, compétition la boo xamante ne dañ fa dem naturellement mhm. euh, yóbbuwuñ fa dara lu dul talent ak mhm. xam nga support surtout support aussi gars yi dañoo ñëpp dañoo ñëw jàpp si. xam nga dooleel talent bi parce que talent kese doyut foog moom ginnaaw bu nekk ñu nekk ci ginnaaw di puus gars yi ñëw puus ñu dem man bokk personnellement mosuma sentir ni def nañ ma dara flop te aussi mosuma def kenn dara flop te yaakaar naa musuma seetaan compétition flop gis benn artiste bu ñëw baat bi takk wala moom problème mu joué kon mun naa ne du ay xon affaire yooyu noonu amu fa sens trop quoi. peut-être nag du ñàkk ay muuslaay ay affaire parce que mënoo taxaw ci benn public boo xamante ne plus de un million personnes di la suivre di la seetaan peut-être du ñàkk yenn muuslaay yooyu mhm. mais pour xon pour gagner moom <laughs> yaakaaruma ko quoi yaakaaruma ni sax mën na nekk ci hip hop. Eh. ok euh, lii il fallait ma souligner ko parce que gars yi bëri ba ñu gisee affiche yi dañ ma laaj question yooyu te question yi man tam j'ai l'habitude di ko tàmm di ko dégg ci hip hop Galsen mhm. comme dem nañ final ñaari jeunes yoo xam ne dem nañ final xam nga mhm. participer nañ si il faut il fallait ñu laaj leen seen seen laaj leen quoi nan ngeen ko dundee mais comme répondre ngeen nice rek c'est cool quoi mm-hmm. euh, di wax na ñëpp nag kuy génn si këram man mi mooy génn sama gàlle sax sama yaay ñaanal na ma xam nga mm-hmm. loolu moom c'est mm-hmm. Sénégal ñun ñun loolu la ñuy dund quoi xam nga lool la ñuy dund quoi waaw <laughs> di bëggee yow suñu directeur maa ngi koy bëggee bu baax quoi xam nga waaw ndànk rek ñu continuer suñu suñu émission euh, daam lu ma la bëgg laaj yow ndóobin si laay ñëw yow ndànk rek ba nga jëlee flow bi ba léegi lan nga ci santé lan nga fan nga toll fan ban niveau nga yóbbu sa bopp wala dafa yéeg wala dafa wàcc wala nu mu demee noonu ak ban sensation nga amoon ci jël flow yee xam nga flow kenn mënu ko mun naa ne mënoo ko gagné ba pare sa niveau di wàcc parce que compétition la boo xamante ne bokk na ci compétition yu gën a mag mm-hmm. Afrique sax laay wax quoi Afrique de l'Ouest xam am na lu bëri loo xamante ne may nañu ko mais gis ñun benn problème lañu am nekkuñu artistes yu génnee flow parce que avant Flop dañoo existé woon. ak groupe bi ak label bi génne projet xam mu bokk ci projet yi ñu nominé Galsen Hip Hop Awards xam def ay affaires yu bëri gagné ay compétition yu mel ni ay Waxi Wurus ay Hip Hop Révélation Jess Flop bañ fay dem sax dañ ñu doon wax lan ngeen fay def. ok parce que li nga lii nii lii nii dafa baax ci souligner. ñëpp ñoo xam loolu. si si suñu la invité c'est bien nga wax. que fi nga sa jaar jaar loolu dafa baax. ci nit quoi def def nañ ay affaire yu bëri avant mm-hmm. flow def nañ ay affaire yu bëri nit yi xamoon nañ ñu quoi. Mm-hmm. peut-être amuñu woon accès trop ci grand public bi. mais mun naa ni melomaan yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy suivre hip hop Galsen xamoon nañ Ndobin xamoon nañ Kasinka Crew. xam nga mun naa ni flow dafa ñëw nekk benn affaire bu dolleeku war rek mm-hmm. ci ci projet bi boo xoolee sax. d'habitude vainqueur yi man maa ci mujjee génne man maa ci gën a yéex a projet parce que Flop daf ma fekkoon ci projet yu bëri. te li may wax mënu ma mënu ma ay projet pour continuer ay projet mais actuellement maa ngi ci sama projet album bi nga xamante ne Flow moo ko war a génnee incha allah album bi mu ngi tudd ba bor bor du am rakk euh, oh, mooy loolu quoi maa ngi ci projet bi di wax incha allah bëgg nañ mu disponible ci décembre bi peut-être bu ñu amul aussi li nga xamante ne soxla nañ ko si dañ koy poussaat genre année prochaine quoi waaw parce que bëgg nañ mu nekk album boo xamante ne dina am fu mu yegg dina am fu mu ñu jëlee am fu mu ñu yóbbu parce que toll nañ foo xamante ne waratuñu def lu lu baaxul quoi waratuñu def erreur parce que dañ ñu xam ci game bi tey suñu tur ak fi mu yegg sax suñu jëmm yeggul foofu noonu comme day baax aussi booy génnee nga jox nit yi qualité xam nga te hip hop Sénégal gis nañ ni affaire mu ngi naan projet yi ñu ngi génn mais bëgguñu def comme li gars yi di bëgg nañ def lu high level ok moom moo doon finaliste daaw ah? non daaw ci géej. 2018 2018 ok. ok ñu ñëw ci bac bac yow mi nga xam ne dem nga flow up ñaari yoon dem dem ñaari yoon. wala ñaari final si ñaari final ñaari yoon ñaari yoon final gars yi gagné la loolu yow nan nga dundee affaire boobu comme moom ni mu waxee nan la ci ak fan la la yóbbu ak. Mhm. ban niveau ak nan nga ko sentir quoi loolu nan nga gis. waaw bon dañu def lu dul sant yàlla quoi. Mhm. pour man comme euh, lu ma koy waxee rek à tout vainqueur ba mooy dem si genre compétition bu fekkee exactement am nga background bi am nga. am nga xel bi. Mhm. cest à doo demee avec euh, esprit wu damay ñëw rek foxati quoi. en général kuy demee loolu sax da ngay faral di gaañu. mais da ngay jàpp ni déjà artiste nga da nga ñëw pour bëggal tout un chacun quoi. dangay ñëw juste pour wane li nga xam ne nii ci mettra non seulement ñi nga àndal dañuy bokk. Mhm. mais ñi nga xam ne ànduñoo yow sax dañuy taxaw mais alors maintenant instant yooyu e la ñuy def sa découverte quoi commencé naan kii fu mu nekkoon kii man loolu laa ci gagné en fait quoi. c'est-à-dire très bien ñëpp loolu la ma xamee da ngay joué après artiste pour loolu la quoi foo munti dem fu ñu la xamul l'essentiel c'est de mettre tout le monde dans poche faire convaincre tout un chacun que ni voilà tu sais faire quelque chose quoi. ça lu décidé da xam ni c'est leur position mais alors public bi peut-être dina comprendre exactement. et nga ciy gagné yow en retour da permettre nga relancer prochainement. parce que comme ils l'ont si mhm. bien dit organisateurs ils ont dit tremplin du hip hop. alors da ngay dégg ci biir que c' est pas non seulement pour le vainqueur mais ñi nga xam ne sax ñu ngi ci finaliste yi dinañ da leen leen servir de tremplin quoi. parce que gis na ñoo xam ne dañuy jël flow dañ doon xaar ñu ëpp quoi je veux même des exemples mais nga xam ne ñoom la nekk loolu si final bi sax ñoo leen gën a jug à foo mën a di nga quoi. bëri ay exemple y' a ay As the Best ay Samba Peuzzi ay ay Paco Brise affaire yooyu mais tey jii mun naa ne mënoo tudd artiste Sénégal te doo leen ci boole quoi c' est ça quoi par rapport ak am na ñoo xam ne jël soit ñu ngi xaar foo xam ne mooy loolu je ne pas suivi bi mooy des xaw ma je mais affaire tam mbirum yàlla la foofu ñu mhm. gars yi di xam loolu yàlla mooy bëgg ko neex mu accéder à ce niveau et voilà loolu la ci perdant mun naa ne du amul perdant quoi mooy nu ma ko waxee ci lendemain publication bu ma defoon juste après le sac de vis mhm. un moment donné on est pour transformer cette énergie négative en une énergie positive quoi donc bu ñu gars yi xaar ci ay kii ñoo bi noonu avant Flo xamante nañ bu yàgg. dañ concert au concert daf ma doon gunge ba sama koñ de ay xaaf naa et sama la wax loo bi def naa ay compétition moo doon nekk sama jury. yoo xam ne maa ko jël ci banlieue bi yu kawee moom moo doon nekk sama jury. moo ma ko décerné compétition yu gën a mag mu ngi nii toog. après ñu bokk concours bañ paree gël danse bi mu fi tudd ne mu ngi béggee avant l'émission mais il a fait une très bonne initiative bu rafet dafa defoon benn groupe WhatsApp mu doobin si t'en boo xam ne vingt artistes yu nekkoon flow bi yëpp la jël dugal si biir ba ñuy def ay match de football ak yooyu donc bien sûr ba kon koñu Modou bi noonu xam def affaire yoo xam ne dafa nice donc artistes yi nañ xam ne on est on est des frères on est des ay sacre yi te ku ko tudd da nga koy jot voilà léegi nag leneen leneen pour man boo nekkee boo nekkee am nga talent. Mhm. wane nga sa bopp ñu gis. après doo des si futilité wu ko pertinent damay yem fii non non non il faut projeter le chemin nga dem si. d' accord loolu mi ngi nice euh, mhm. bien parlé kontaan naa ci yéen ñaan ñëpp ah. parce que waaw ay jeunes yoo xam ne am ngeen xam-xam on a besoin de ça parce que des fois il faut nit yi toog pour xam yéen yaa leen di kan quoi ngeen wane seen bopp parce que affaire bi rab bi mun ngeen ko. il faut nit yi di leen dégg ngeen di wax pour mun leen xam seen niveau quoi xam nga te kontaan naa ci invi pare gu ma émission sax mais kontaan naa parce que vous parlez bien quoi mais de benn affaire bu ndaw rek ci flow bi laay ñëwaat benn wax bu benn affaire bu ndaw rek. les même têtes de jury est-ce que vous vous êtes d'accord sur les mêmes têtes de jury à chaque fois. pour man seen seen seen gis-gis ko en tant que rappeur pas ñoo xam ne dañ pour man la meilleure réponse mhm. ñuy organiser peut-être ñoom ñoo ko doon mën a joxe. et de ma mhm. man. Mhm. su ñuy jël exemple si toute toute compétition moo xam bu mu mënta nekk. football basket waree ba li muy doon. on n'a jamais vu des finales de sud yi nga xam ne c'est le même arbitre bu koy arbitrer. c'est ça mais la meilleure réponse ñu ko détenir mooy les organisateurs parce que xaw ma lu ñu sekkal à la base d' abord avec les jurys xamuñ lu ñu signé loon d' parce que compétition bi ñu dañ kaa jël en cours de route à édition la ñu a bokk xamuñ lan lañ ñoom à depuis seen début mhm. alors ñoom ñoo ñu mën a gën a détenir la meilleure réponse ok lan boo ko organiser ñoom ñoo ci gën a mën a répondre mhm. mais daal xam naa ne jury la boo xamante peut être ñëpp xam xam-xam ci hip amul lu leen mën a influencer amul lu ñuy soxla ci pop kenn mënu leen jënd peut-être loolu moom moo leen moo tax ñu teg leen fa quoi xëy na bu ñu fa tegoon benn ndoobin wala benn xam nga artiste bu ndaw peut-être mun nañ ko influencer wala mun nañ jaar ci suuf mais ku wax benn xumaan benn kayit yi xam nga wax benn kalif peut ñoo ñu amatuñu lu ñuy lu ñuy perte ci hip-hop quoi. ok mais hmm. amatuñu lu ñuy perte ci hip mhm. est que du tam yéen niveau yi fi ngeen toll. ñoom est-ce wu leen ñooñu. non. <laughs> wala dégg nga Ndiobi nu ñu mu lim. non dégg naa ko. no voilà mais. attendez saa yu pële oh. lu mu doon def ak ay ñoom Maradona affaire yooyu mais ba tey ba tey les nouveaux joueurs yi ñëw même même lu ñu mënoon ak booy ak gars yi di football nii saa yi bokkul de. waaw mais xam nga tey boo xoolee jury bi. Mhm. ñoom ci point yi nga xamante ne si la ñuy si la ñuy. joxe euh, mais yi bit ngeen def mhm. yéen parce que bit yu booy di def nii. Mhm. dañuy waxante dëgg. waaw non flop du problème mu bit flop du du problème mu trap wala classique wala loolu. problème mu lan yaakaar naa su ma juumul présent scénique bi xam nga ak ak ak bind bi xam nga ak flow quoi te yaakaar naa ñi nekk foofu noonu mun nañ mun nañ mun nañ nommer ci ñett yooyu parce que ay bindkat ñu ngi fa mhm. ay ku wax flow wax xumaan xam nga ku wax présence scénique aussi tamit xumaan xam nga mooy loolu quoi man pour man Euh, point yi nga xamante ne ñoo xam ne am nañ am. waaw su ma amoon lu ma ciy dolli gis benn animateur laay wax. peut-être benn animateur bu mel comme yow. wala bu mel comme taal wala bu mel comme mef. xam nga si peut-être dina am lu mu ci lu mu ci yokk quoi. parce que boo xoolee animateur ñoom ñoo ëpp lu ñuy déglu ñoom mm-hmm. ñooy gën a am écoute. ñoom ñooy gën a am temps déglu son. Mm-hmm. peut-être dinañ am loo xamante ne war nañ ko si mën a dolli. ok loolu rek laa ci am comme comme. ok loolu tam il fallait ñu ko ci flow flow nag yónniwu ma te naa leen wax benn affaire waa tele bi gars yi yëpp di ma suivre flow bu ma mus a dem benn laa mus a dem te dañ maa forcé ma dem mooy sa ba lay seetaan waaw bi keef def noonu biit bi jël ci waaw mm-hmm. affaire boobu noonu c'est la première fois ma benn gayen King Jéré moo ma téye na ma il faut ñu dem final bi ma dem seetaan yi mais musuma dem flow mm-hmm. xaw ma flow lan kii sax nu mu tudd pour bokk sa xaw nu mu demee. Hmm. xam nga nit moom bu la boolewul ci dara doo hmm. bokk. Hmm. mais nag yéen ay jeunes yoo xam ne da ngeen génn ci flow dund ci ay affaire j'ai le droit hip hop laay def poser leen question. si ok dañuy bokkaat benn question rek comment vous voyez le seen galsen jamono ji avec les jeunes. avec les jeunes mi ngi dund dafa dundul mi ngi yàqu wala yàquwul. ok man lu ma gën a neex ci jeune tey c'est audace ko ok audace looloo manqué woon grand yi dafa amoon benn limite ci fu ñu doon yem moo xam seen engagement. événementiel. booy loolu lañ gën a ñemee quoi. yee da ngay gis maintenant salle yi nga xam ne nii bon dañ ko doon réserver théâtre kat autant. ay ay ay mbalaxmaan voilà xam nga léegi maintenant da ngay gis ni rappeurs yi ñoo gën a tourné ye très bien da gis ni voilà kii bu jëlee mois bi beneen mois bi jël mbalaxmaan yi dañoo dem ba étouffé leen sax maintenant énergie boobu noonu booy indi man loolu la audace bi ko man loolu laay rafetlu très bien léegi nag na gars yi yokk créativité ci lu ñuy def mhm. nañ authentique nañ nañ nañ nañ créatif quoi créatif ci ban côté. créatif créatif créatif je veux dire c'est-à-dire faut pas jamais emprunter quoi c'est-à-dire sur le point de vue industrie instant yi game bi fa la toll y'a affaire bu nga xam ne c'est affaire c'est devenu plutôt digital quoi foofu la lépp di évoluer si yaa ngi dégg. Mhm. c'est-à-dire am na benn classement bu ma gis récemment on nous dit que côté industrie le Sénégal mu occupé à la soixante-quatorzième position xaw par contre si on nous dit que si si la fonction d'engagement du hip-hop. Mhm. Sénégal dañ doon wax France wala États-Unis ne. France après ne ne Sénégal te boo jiital même fonction d' engagement ci hip hop da gis ni ni Sénégal moom moo gën a ëpp Afrique fii nii. avec le sac de Y'en a marre on a dit que duum ñëpp gis nañ régime actuel voilà kii wu moo ko fi teg. et loolu ce sont de rappeurs. loolu hip hop bi moom moo ci gagné quoi maintenant booy nouvelle vague te affaire bi am mouvement dafay neex quoi. kii buy def que c' est am comment poésie ah bu ñuy def euh, engagement ñi def parnasien ñi waree ba lu ñuy def. touche yooyu di bëri loolu moom mooy def charme bi faut pas jamais ñuy migrer di copier parce que gis naa aussi li mujjee génn naaje yi traité nañ ko ba pare gambien yi traité nañ ko ba pare ça nous mène à la rue pas nañu jël ci nga xam ne ñoo ko moom ñu créé ci ay affaires yu extraordinaire mu ngi fi am pa gaay gaay bu ko ragal nañ ko jël exposé ko et voilà jam suñu yoon quoi. man mun naa ne mu ngi naay sax mm-hmm. parce que boo xoolee tey hip hop Sénégal léegi la gën a am public aussi léegi la gën a am xaalis non rap Sénégal boog xaw ma <laughs> tey mënoo xool ñaari jeunes gisoo seen seen kóol son rap peut-être bu njëkk da nga daan làqatu sax boo koy def xam nga tey la affaire yi gën a dox gars yi léegi lañ gën a osé comme nu ko bag as waxee tey ñu gars yi osé nañ di jël ay stade di jël ay salle yu mag xam euh, li may li may li may wax rek war nañ mën a am aussi tamit suñu ay saalu bopp. bokk na ci li nga xamante ne manqué na hip hop euh, Sénégal wala rap Sénégal tey war nañ mën a am suñu télé bopp war nañ mën a am suñu rajo bopp. que fonds yi ñu ngi dugg xaalis mu ngi am pourquoi par loolu noonu ñu investir ci loo xamante ne suba dina dina dinañu gën amal njariñ mm-hmm. ni ngay fay benn grand théâtre peut-être bu fekkee salle boo xamante ne hip hop bi moo ko moom wala rap Sénégal moo ko moom xëy na dina moyen tuuti quoi ci ci ci artistes yi dinañ ci mën a gagné euh, bu ñu doon dajale sax sak li dugg ñu koy dajale mun naa ni mun nañ mun nañ tabax lu bëri quoi ci hip hop Sénégal mm-hmm. quant à musique bi moom mu ngi mu ngi avancé affaire yi mu ngi nice gis nañ ne vie yi muy gën a bëri gars ñu ngi gën a am xaalis gars yi ñu ngi gën a voyage yi ñu ngi gën a def ay affaire mais juste comme li Bac As wax rek création moom mooy manqué toujours euh, dañuy copier rek te pourtant am nañ fi ay affaire euh, man am na benn son boo xamante ne pour euh, boo koy déglu da ngay xam ni drill la mm-hmm. mais ci biir drill bi da ngay sentir ni dirilu son waalo waalo la quoi boo ko dégloo di nga xam ne lii dagañ la dagaj style xam nga pourquoi pas te fii tey am nañ am nañ lépp quoi culture yëpp ku si nekk am nga sa tig tëgg am nga sa façon tëgg am nga sa façon rythme pourquoi pas ñu insérer ko ci te mën na nekk quoi am na nu ñu koy defee mën na hip hop mën na rab mën na nice quoi. te du te du génn aussi norme yi. d'accord ok euh, ok Babacar waaw bu boo paree rek après nga préparé ñu rubrique freestyle mais balaa ngay dem foofu rek ma posé waat leen benn question di wax gars yi mun ngeen ñu suivre via Facebook Instagram wala YouTube Africa 7 ngeen di dem direct rek seen émission beneen game la avec DJ waaw di kontaan ci ñaari jeunes yi nga xam ne ay rappeurs nañu il ñu toog waxtaan ak ñoom am na ñoo xam ne ñu message sax naan ma concert bi ndax gars yi dinañ ko def nañ def concert incha allah xam nga mun ngeen aussi tam commenter via euh, YouTube ah ñu jàllale ko ngeen gis ko en direct aussi tam téléphone bi tam Babacar après freestyle bi mu nee ubbeeku rek nga ubbi ko gars yi parce que a de gens yu nekk Colobane aussi tam bëgg nañ poser ak euh, bac as question quoi euh, Ndo dama lay wax benn affaire rek. dama dégg ne gars yi hip hop Galsen dañu la téye woon parce que da nga doon rap instant yii gars yi dañu la daw parce que dañu gis nga dugg ci love te loolu wax bi daf ci bëre loolu moom yow war nga ko dégg. waaw yow da nga doon rab quoi léegi yow dama xamul quoi ndax. non doo danoon rab loolu moom. waaw naa ni wax ko xamul quoi. parce que li may def mënul kenn mënu ko génnee ci rab. li ma lay wax rek hip hop Sénégal dafa am ay groupe yi nga xamante ne ñoo ngi fii peut-être comprendre ñu lu bëri quoi tey. te yow euh, taloo expliqué. non parce que amuñu sax jot boobu ñun ñu ngi suñu carré ñu ngi suñu wéy temps suñu temps yëpp studio lañ koy def suñu temps yëpp ci ay répétition lañ koy def lan moo tax ñuy rendre compte que ni ñun lii la ñuy def quoi. te am na public boo xamante ne ñu ngi leen di jox am na rapport diriger. non ah, man du ma du ma rapport bu public bi di diriger parce que bi may rap tamit aussi tàgguma benn public. Ah, man maa def lu tax gars yi bëgg ma doon ma flow quoi. un jour am na un gars su ma ko tuddoon peut-être ñëpp dinañ ko xam. Hmm. daf ne ma booy yow lan moo tax nga commencé di trap. nangam nangam yow classique man nga ma ne ko yow sama ban son moo la gën a neex. mu ni ma forxoos ma ne ko forxoos lan la mu ni ma non forxoos. xaw ma ma ne ko forxos pourtant trap la pour wax la que ne ñoom xamuñu sax lan lan ak lan quoi lii mooy lii wala lii mooy lii xam nga euh, tey boom bap style la trap style la euh, dëreel style style la ay mumbal affaire yi bëri nañ fi quoi man pour man solo bi mooy li nga xamante ne loolu nga ciy teg xam nga fexe ba booy tey ci benn ci benn façon musique la ñu orienté wu ñoom ñëpp te pourtant yow da ngay rap pour yee booy yooyu noonu essayel nga bind loo xamante ne dina leen yee ci musique bi ñoom bi ñuy déglu mm-hmm. tey par ma pour man xam ñun lu tax ñuy ñuy musique loolu bokk na si fexe ba éveiller jeunesse bi fexe ba wax ak booy yi xam nga orienté leen ba ñu mën a nekk ci benn wéy bu normal. léegi tey loolu noonu boo koy boo koy def fekk ñoom ci trap la ñuy déglu wala ci yenn style yi la ñuy déglu il fa que nga nga passé sa message foofu noonu pour ñoom ñu dégg ko te tey génnul hip hop tey trap kenn mënu ko génne ci rap kenn mënu ko génnee ci ci ci ci rap xam nga tey actuellement boo na nekk na style yoo xamante ne vraiment ñëpp ñoo koy def mais gars yi dañu am peut benn cible boo xamante ne kii la ñu lii wala kii dafa war a def lii force te pourtant kenn forcé wu la quoi. ok xam tey ñun dañuy def muy neex gaa yi di ko jënd. peut-être da bañ a neex nga xool leneen quoi man loolu laa gëm. forcé forcé aussi tamit kenn parce que hip hop la ñuy def rap la ñuy def chaque. chaque temps da ngay gis affaire yi day màgg. ay Dirty South jaar na fi ay yeneen ak yeneen jaar na fi xam nga pourtant am na ay gars yoo xamante ne dañ leen respecté. Mm-hmm. ci Dirty South lañ démarré di rap. am ñoo xam dañ leen respecté te pourtant ñu ngi trap mais da xool dañ naan bac as warul trap parce que moom classique main la diw moo war a trap. kenn mënul comprendre quoi. moom mu ngi def ay affaire yu mu ngi def ay affaire yu cool parce que may wax as the best maa ngi koy maa ngi koy bëgg de passage dafa génne projet pourtant dafa génne projet bu nice gars yi lañ doon dox rap Sénégal rap classique dekkiwaat na te pourtant boo dégloo projet as the best yaa ay afro yaa ay leneen ak leneen pour wax la que ne ñiy commentaire xamuñu sax lan mooy afro lan mooy classique lan mooy trap lan mooy lii quoi ok ah euh, léegi xaar ma laaj saa yow noo gisee gars yi duñu bugg focusé saa waay ci benn bagage maanaam focus ko si ne dafa war a def waaw classique mais gars yi yi nañ xam ni Ndobin c'est un pur produit du flop te dégg nga ne mu la avant moo jël flop il a fait combien de compétitions ba pare jël ko mhm. alors Ndobin kon loolu ko quoi flop flop multifacette la moo tax donné dix minutes de scène su yemoon ci benn style du ko jël de ah, Ndobin peut-être benn touche boobu la ko gars yi di xamee mais est-ce que sax touche yi mu denc ëppul yi mu wonee ko

bëgguma nga dugg ci man j'ai pas ma wax wax naa ko sama ma rab de prédilection man football teg ma latéral damay football axe ma football milieu défensif ma football offensif. pataat ma taxaw ci lu ma lu ma ci yokk rek prédilection. Mm-hmm. boo xoolee boo xoolee taf tey ñun suñu premier projet seen bu njëkk mën naa ni son yi ci gën a gars yi gën a fil non non pourtant seen bu njëkk yaa a trap y' afro aussi. tey boo déglee son maale boon pourtant gars yi dañ ko fiil melomaan yi dañ ko bëgg pourtant afro la xam nga déglu dipi trap da nga trap la mais gars yi mënoo leen comprendre. est-ce que mës nañ déglu bañ a déglu tey ñuy wax wala ñuy commentaire ñoom ñoo ñoom ñoo gën a fiil son yooyu noonu mun nañ la ko limal wala bu ñuy doxaan gel sax son yooyu lañ koy doxaanee mais après ñoom ñooy toogaat di wax waroo def lii waroo def lii man tey du ma toppandoo kenn loolu yàlla def na ko ci man man keef damay damay dégg sax style ma ne keef style bi naka la ñuy def bu dëpp ko mu nuru leneen ba may def depuis trap noonu la demee gars yi dañ doon def trap ma ne pourquoi pas may indi beneen style boo xamante ne neneen laa ciy tegoo neneen laa ciy rabee ba ki koy déggu dina ni bi trap la wala lan la ba léegi dafa dal nit yi ci côté boobu noonu quoi dañuy laaj est ce que lii trap la est lii lii la man affaire yooyu noonu moo may neex fexe ba créer ba xam nga affaire yi du ma ko euh, dénaturaliser mais ma def ko loo xamante ne dañuy gis ni kat lii ndóobin moo ko njëkk def. d' accord mi di bëggee bu baax a baax keef ah bitam bu mu la defal nice na oh, trop keef ni koy bëggee bu baax mi ngi job job bu nice di bëggee bamba jéggi raay di bëggee gars yi nekk foofu yëpp mention spéciale à vous vraiment euh, bu paree rek waaw Babacar nga jox ma rubrique freestyle nga jëlal ma bit bi ñu def numéro un nga tegal ko saawaay après ndànk rek joxal ma ko. yes waaw ñu ngi ci plateau bi ndànk rek rubrique freestyle suñu gan bi moo njool xam ma man maa gàtt xaw ma mu demee <laughs> waaw non mi ngi cool mi ngi cool mi fii ay caméra moo fi nekk ay tonnu caméra quoi mais ñu ngi lay bëgg di la ziar bu baax maa ngi dolli ziar baa baa nga nuyu askan bi salaam salaam sama gars yi ah salaam Sénégal mm-hmm. salaam Africa seet yéen ñëpp maa leen ziar leen bëgg lu bëree bëri ah di ziar sama ñaari ndaanaan yi di la bëgg yow di ja taf di bëgg ñi ñu seet ñëpp mm-hmm. fan nga jóge ban dëkk. <coughs> maa ngi duggee yëmbal. ah yëmbal. yëmbal cité laa jógee. yëmbal nga dëkk wala da nga jóge ci région. yëmbal laa dëkk. yëmbal nga dëkk. naka rab bi yëmbal. foofu mais avant ça waaw gars yi ay ndobin. Mhm. Ah, bëri na gars yi ne carrément ñu ci game bi ko teewal. mais est-ce que nga ndobin jàppalante ngeen seen biir est-ce fa nekk di xam di di ko teewal quoi parce que rab moo nekk loo xam ne dafa yaatu quoi gars yi seen concert ñu am benn du ñaar. Mhm. seet naa gars yëpp mais da nekk loo xam ne daal <clears throat> mi quoi game bi gars yi ñu ngi ci di ko teewlu à saa su nekk. ok gars yi ngi support hip hop tamit aussi. ok mhm. kon foofu. foofu mi lan nga defagum ci rab yow. naa benn projet bu tudd Kaddu Sirène. ka Kaddu Sirène. Kaddu. Kaddu Sirène. ah Kaddu Sirène. ci ren année bi ren Sirène Sirène. ah Sirène. ok lan mooy Sirène Sirène bi laa bëgg ko xam. Sirène ça veut dire que ni benn benn rab la bu ne ci géej. ah ok mooy rab bu nekk si géej. soit tamit bu la neexee gars yi mën nañu ko def comme sirène ambulance. ok aussi. ok sirène nu kaddu mooy wax sirène mu nekk loo xam ne carrément mooy li ñëpp li ñëpp di dégg. ok bu waxee rek nit ñi dañoo war a déglu. di ko xaar ko ok loolu kañ nga ko génne. 2018. Euh, 2018 ba léegi génne ko dara. génne gu ma dara ay single. Mhm. ak chaque année damay teg concert. ok chaque année damay teg benn concert kaddu sirène sow un deux mais instant bii nii comme euh, coronavirus bi moo ñu moo ñu té moo tax instant bi ni ñu off ko quoi bëgg bàyyi ba déwén incha allah incha allah après nga génnee concert corona yé man ok jaajëf xaaral ñu jox la benn bit xool nan ngay jox gaay nañu ñu dem waaw Babacar bu paree rek jox ma bit bi ñu xool yé yëkkatil ko yé ok yow yow maa ngi baaral ngay sóor ci boolu fekk bi suur naa maa ngi baare ngay dóor comme bës ko tóoru almaa war nga xam ni booy góor nekko ci maa ngi ko dal yaa fi wooti cooki kalan ay cëf fis nap ko dal man la cet domaine gooma sa bu dee maam la ngay rap ñu wër la nga bëgg ci sax te xel mu nëx la god damn yaa ngi noqi nuur tax ma teel a nekk ca do lëndëm dar ma fay nuur foog nga tëx pour nga zee ci match muuma ba nekk njuuma di soppaliku jomma loo ma bis te mbis nga gaare tegaane defaaya town bi nga bàyyi jàng jóbbatuma lépp def ci sound bi ñu war a génn nga jox lu toll ne àdduna ma fo ci rami fiiri fay ko benn ajjuma dooma sa tàkk tànk maa ngi dëkk ndox mi yor xel lu jënt mënul feeyi loolu war nga jommi ca da day jox man benn rapport du ma tere go force lay doon ba amul gàdd bul di bëre dóor kaawo day am prib biif ngeen dem jàngi rap takkuma yësi cosaanu rab rabaguma tee ngan di bàkkaar man la fittis ragal lu ma yenn koox si doo ma ci gis bul fàtte sikket mën na xëy dee amee sikkin bu yàlla taxul wax ma looy def kontel sa fistin rab bi daa fiir ma xam ko fidèle yam ci moom jël élan ba ter jeex ba ñëwee tulli damay góolu rab du mystique mais ci la bokk ku ñeme dañ la dee nga xam ni waaju ci la toog naa bu resee nopp yow dang may dégg kon ni dalal ton keneen ku la wax ni yow la xam nga nii dalay tooñ rab day fay ma bëgg tàkk nu muy demee kon tux ba de vëpp man di ci bon bi lu may doyee bon na jaamu jeex nga def këj polonge yal saafara maa fi dàkk ndey raab yow na la sanfaral man la émro naa la rendi kirim sanfara du ma mapp ndog boy yi chauffeur de apprenti kaay garanti sa rappeur tegu fi emprunte maa ko lënd xelam du nàcc ba muy fëgg dënn gént naa naan ci loowu FM triplé sa bës bàyyi waxal ma king bi day fen hip hop du sow bis respect laa ki ay tem génne naa lu munta dee mën na dem ba centaine yesaay yé <laughs> mi ngi cool kaay taxaw di kaay taxaw laaj la benn affaire ah, laa ci quoi. Ah. parce que yëmbal la jugee da non xamante ñu nag vraiment. mais def na lu nice sama euh, affaire yi gaañ na ma daal quoi. Ah. yëmbal moo demee nii dëkku rab la xam nga <laughs> mënoo fa jóge non rab la mënoo fa jóge te doo rab lu leer laa lay wax taf yëmbal bokk na si saak actuellement yu ëpp ay jeunes dëkku rab la ci boppam dëkku rab la <laughs> yëmbal dëkku rab la non du ñu daanu mais dëkku rab la waaw foofu mooy loolu quoi maa ngi shout out artistes yi yëmbal yëpp xam nga di shout out bi affaire nice na noo gisee noo waaw bien mu ngi cool j'ai bien aimé style bi. Mhm. technique yi et voilà na ci kaw bi loolu essentiel quoi. Ah. waaw mu ngi cool macha allah mu ngi cool. ok joxal joxal ma ko micro bi ndànk rek. waaye j'espère waaye ñu ngi lay xaar j'espère que temps yi di nga génne ay bagages parce que gars yi rab yi nekk ci suuf gars bëri na de ñii sax dañu war a tiit. ñaari gars yi dégg nga non gars yi duñ gars yi pare nañu di nelaw booy ñëw de. booy yaa ngi fi de non nelaw gisoo gars ci affaire yi hmm. ni. hip hop bi dafa yaatu quoi. Mm-hmm. te ñun ñi ngi ci di ci bay suñu waar asa su nekk. dëgg décembre bii ngi waaj ay affaire comme que pandémie bee tax ba tax affaire génnul. ñi ngi waaj pour def suñuy ay son ak ay vidéo mais incha allah rabi concert bi ñu teg chaque année décembre dinañ ko yóbbu ba. 4 euh, avril incha allahu rabbi ñu teg benn big show foofu noonu Kali Sirène Sow 3. noo gisee jeunes yi ñëw fii di mais mi ngi nice ah. Mm-hmm. gaa ngi gaa ngi gaa ngi def lu nice. Mm-hmm. yaa ngi def job bu rafet quoi ci xam nga yaa ngi wane jeune talent yi aussi ba gars yëpp dañuy ba ku fi ñëw di nga bëgg wane sa bopp quoi aussi mi ngi naaj trop quoi di la di la bëggee bàyyi nga tàggu gars yi tàggu yee waaw maa ngi bëggee ah di la <laughs> bëggee sa ñaari ndaanaan yi fi teew xam di bëggee ñëpp ñuy seetaan mm-hmm. di wax ah, Sénégal ca kaw ca kanam rek yeewu chef Africa Z. jaajëf kontaan ci moom bu baax a baax a baax ah. bu fi ah. waaw mu ngi naaj ah. sànq. li may wax rek man parfois peut-être lu may suivre télé bëriwul. parce que li may am temps di di di toog télé bëriwul. Mhm. mais parfois damay dugg di xool live yi surtout bi nga ma waxee émission <laughs> surtout ma gars yi moom artistes yi tàmm nañ loolu quoi dugg naa xool émission yi nu muy déroulé et tout mais maa ngi gis affaire yi affaire yi daf may jëlee kaw. non mais concert yi di ngeen ñëw dafa ñaar laa defagum. xam nga sama télé bi gars yi bugg ko man maa aj nii pour ñu toog waxtaan. non affaire yi dafa dafa dafa nice après si ñi ñëw pour def. non non gis nañ man maa ngi ciy gis sama bopp bu baax a baax quoi mm-hmm. te mun naa ne hip hop lii nii lay soxla xam nga tey li may wax peut-être démb da doon metti sax pour nga am benn émission rajo tey da gis ay jeunes ay booy yu ndaw yoo xamante ne mën nañ am sax benn son wala ñaari son ngay gis ñuy am accès ci yenn plateau télé yi mu naa ne loolu fierté lay nekk si ñun parce que ñun biñ si bi ñuy débuté xam nga yombeewul woon noonu quoi ah, mais tey bu ñu gisee suñu ay frère mu yomb leen noonu te yéen yéen a tax mu yomb leen xam nga yéen a ngi ciy def liggéey bu am solo man li laa gëm quoi foog gars yi di di ñeme si ci ci ci télé yi ñu nekk ak rajo yi ñu nekk quoi parce que li may wax rek animateur loolu la. Mhm. tey man maa ngi leen di séentu ci ay awards war ngeen mën a gañ ay affaires yu bëri parce que lii fierté la. xam nga yéen booy te. xam nga kenn fayu leen kenn neexalu leen. Mhm. yéenay yéenay jël seen i crédit di woote di kale di defar ay affiche di partager di invité ay boo yoo xamante ne kenn xamu leen sax. xam nga di di di di ñitti di leen découvrir loolu pour man fierté la quoi. vraiment ñun ñu ngi ñu ngi ñu ngi loolu noonu. jaajëf ah. bu nice déjà man émission bi am na bu nga xam ne Rosso sama producteur. Mhm. jaaroon na fi maa ngi ko doon suivre maa ngi ko invité woon moom ak grand Khalifa ak euh, que je G Black. G émission bu nice comme conflit génération xam xam nga chaque bu ñu doon wax émission boobu gars yi war nañ ko di seetaanaat quoi parce que débat bu intéressant la mm-hmm. gars defoon mm-hmm. et je pense ñuy doog a ñëw buñ ci jëlee war nañ ci mën a sukkandiku quoi kilifa il a beaucoup fait mm-hmm. Ross ñëwoon na après kii ji black ñu ngi ci yoon donc waxtaan yooyu noonu ku ci mën a fort di nga xam fan ngay positionné wu quoi et dans une émission wu ngay invité ay cadres

si ay freestyle yi ngay génnee un deux trois. waaw waaw waaw mais un bi wala deux bi ban corona am na loo xam ne bëgg naa waxaat ma ko. Mhm. waaw deux bi la wala un bi la. mooy un deux un deux waaw. non am na boo xam ne texte bi daf kii bi dafa ma neex bind bi. Chine Covid côte à côte contact contaminé cas communautaire confinement cagnon coqueli course casque bleu couvre feu. man loolu yëpp la kaa ñoo beeg affaire boobu tax nga wax ko si parce que couvre-feu beeg yooyu mais c'est-à-dire ce m'a inspiré vitamine C bi c'était c'est-à-dire de nañ deux années de compétition on n'avait pas à foutre si si ay compétition quoi maintenant jot na ñu ñu génnee dara exactement ñu mën a découvrir bagage visuellement quoi gars yi dañ doon déglu son yi mais xamuñu exactement kii mooy kan voilà mu tombé corona bi et corona y avait beaucoup de non en sec qui tournait quoi ay corona kota contact kii contaminé kii kii communautaire affaire yooyu et je me suis inspiré dans ça mais ma jël ko après tuddee ko vitamine le C ça détermine corona. ok voilà mu def samay vitamine ci corona bi quoi. ok ay suuf balaa ngay avance tuuti yow tam sa corona boutique bu tëj boutique boutique am nga du tëj boutique bi nu mu demee noonu. waaw gis nga lan nga gis ci ko heure baa jotul woon wala gars yi dañuy ragal heure bi. non xam nga corona dafa nekk benn affaire boo xamante ne dafay indi ay moment folie quoi si sénégalais aussi daf ñu dundaloo lu bëri li nga xamante ne ñun tàmmuñu ko woon teel a tëju bi fii yàqamti da ngay daw pour boutique yi balaa ñëw tëj xama nga genre en tant que artiste foog nga inspiré wu quoi dina la am lu la mën a inspiré boo xoolee genre police bee ngi ci mbedd bi di sàmmari yi boo yee ngi wiiri koñ di sàmmari yi tey dangay gis jeunes yoo xamante ne ay grand frère sax laay wax dafa mel ni dañoo namoon saamour yi parce que policiers yi dañuy taxaw nii ñoom ñu taxaw nii bu ñu ñëwee ñoom ñu wiiri koñ taxawaat na lee quoi xam nga affaire yooyu moo ñu doon inspiré dañ doon toog di ko xool di ko gis ci net bi wala sax ñu toog ci kaw terrasse di seen gars yi di daw def sol ay tik-tik xaw di ko préparé mel ni affaire dafa mel ni foo ko après si la ñu am inspiration wu def loolu noonu quoi si lañ def benn siège ñaari siège ci corona bi muy affaire yu dañ ci doon foo noonu mais ah, après daf ñu dépassé quoi dañuy gis télé yeeg di ko jël di ko teg mais ngi mi ngi naaj su ma continuer ak Bac As léegi lan lan lan nga ñu mun préparer léegi. bon instant yi ñu ngi si enregistrement. Mhm. maa ngi advance musique ma rappelé ko gars yi. Rosso ñu ngi koy bëggee bu baax. très bien moom ma indi <laughs> ma indi ba fii. Rosso maa ngi xar yu bëri jaaykatu <laughs> xar la léegi bàyyi na rab bi de Rosso day jaay xar. jaaykatu <laughs> xar la mu ngi revenir en force de baax la nga naan bàyyi na rab. mu ngi revenir en force de. non bàyyi na rab léegi bàyyi man ma noppi rek balaa ma kaa yàqal bàyyi ma noppi balaa ma kaa yàqal en fait waa ñu maa ngi nekk ci enregistrement yi. Mhm. yee daanaka instant yi produit yi naam euh, ci lañ nekk nii quoi. album euh, te pour être pour être vrai quoi sérieusement man xaw ma sax lu ma ko war a tuddee quoi parce que li ngay wax yëpp nekkul loolu. sérieusement quoi dadul loolu yëpp quoi. may ba tey maa koy war a war a maa koy waral tour mais je pense du loolu yëpp quoi. en na gars xaar du bagage quoi. Hmm. parce que ku xam bagage xam ni c'est c'est c'est la créativité c'est des choses qu'on a jamais vu c'est du pur rap c'est des écritures. Hmm. et c'est des choses yoo xam ne c'est c'est ça éternel quoi. ok mais j'espère ni mu génnee flow up bi nii amul suite dafa dafa laaj suite quoi soo génnee benn affaire. Mhm. suite boo xam ne day laaj vrai vrai promotion. est-ce que yéen jamono jii ak ni ngeen nekkee ci flow up bi ak ni ngeen mënee rap ak ni leen gaa yi ne est-ce que pare ngeen. Mhm. pour financer dëgg-dëgg. Mhm. pour am visibilité boo xam ne gars yi mun leen gis quoi. loolu moom parce que dafa ànd ak loolu quoi même benn titre ñaari titre sax daf ko war a àndal. loolu loolu moom sama question la du question Ndobine. moom il a 5 millions. moom il a 5 millions moom mun na financer ay kiwam quoi. mais kan moo am 5 millions. Ndobine moo gagné 5 millions. 5 millions la 5 millions il a gagné 5 millions. quand même moom il de quoi ah, financer son projet nee naa mu wari ma mu bañ. <laughs> ma war a wari ji ma doon gunge ba sama koñ ne ma gaañ fatul maa ngi dem buun gaañ ñibbi waaw waaw <laughs> war a ma daw <laughs> bi technicien yi après ngeen ñëw ah <laughs> cinq millions mi fi de waaw cinq kay moo toog nii voilà bon ñun boo gisee du bon pour question de productivité pour naa ne xaw nañoo yomb ñu santee ko yàlla mm-hmm. waaw am nañ son yu pare yeeg yooyu yëpp quoi mais après daa benn affaire boo xam ne moom mooy accompagner produit mu génn et voilà si lañ nekk ñu ngi sollicité sollicité qui que ce soit pour mu ñëw pour jàpp ci quoi. ak euh, waa Kajaandu moo xam waa advice xam nga ak sama gars ñu ngi jéem a xool nu ñuy concerté wu pour ñu jéem cee jàpp. et voilà ça avance quoi. franchement mais j'espère que dina ant dina am ay effectivement loolu la ay conférence de presse parce que yéen man je sais pas ngeen ragal conférence de presse da ngeen bëgg génne affaire nii rek jox ko animateur yi. pour pour ñu pour ñu prompt rek ci réponse bi cest dire mënuma revêtir bagage ba pare du ma def loo xam ne laaj na bagage. waaw parce que borom bagage yu lépp lépp rek day ay bagage lay doon quoi. très bien donc nañu gars yi séntu ci lu professionnel sax quoi. et te incha ñu ngi man lan laa bëgg laaj lan mooy ndóobin ba pare. waaw ndóobin picc picc la picc ndóobin benn picc bu ñuul kuk xam kon man <laughs> mooy loolu muy benn affaire bu bëri ay Youssou Ndour noonu moom loolu woy boobu isa magul Youssou Ndour sax <laughs> moom loolu woy cosaan la quoi yàgg na fi picc ndóobin dañ naan du ma du du naawa ndoog ramatu quoi parce que bokkul bokkuñu dafa mel ni man ak rab Sénégal rek ok kon bokk leen niveau quoi. non man maa ngi ci yeneen affaire lu tax sama projet yeex mun naa ni loolu la quoi. kon sa gars yi balaa ñu la doon crash naan da nga changé da nga nii waroon nañu xool tur bi ba pare. parce que loolu daaw ndox ñu gars yi si na la demee xam xamoon dëgg-dëgg bu ñu xamoon dëgg-dëgg ndoo bi mm-hmm. du ñu wax loolu tey li may wax man euh, ñun su ñëpp sax laay wax quoi benn handicap la ñu am peut-être muy Covid man euh, amoon naa ñaari date ci ay salle yu mag xam waroon génnee sama projet tey naa ne after affaire yëpp am xam nga dañ koy nangu quoi def nañ ay vidéo presque man def naa cinq xaw ma quatre vidéo yoo xamante ne génn na comme single te dara du ci bokk sax si sama projet xam nga mooy loolu quoi mun naa ni bokk naa si artistes yu njëkk pare parce que ba ma dem flow rek neuf dix xaw ma douze son yoo xamante ne defoon naa ko ba mu pare neuf son yi laa gée flow peut-être douze son loo ci boo loo ci yokk day nekk album mais album dafa nekk loo xamante ne moment boo tollu rek tey am dangay am yeneen feeling parce que day mel ni dund nit ki yeewu dugg fi xëy wàcc. Mhm. tëdd nelaw man noonu laa koy dundee quoi chaque moment dafa war a dafa war a tegu chaque année dafa war a tegu tey da nga war a jàng ci année yi ci année yi fi yi passé ak yi nga nekk ak yi war a ñëw quoi. Mhm. man ci ñetti ci ñetti yooyu noonu laay tënk sama album moo tax ma bugg mu am fu mu yegg xam naa ne dina bett ñu bëri nag. dina indiwaat aussi ñi nga xamante ne demoon nañ. parce que di ci dugal yi dafa tuuti sax pour ñu def ko ci album bi bu ñu mënee am yeneen 5 millions muy 10 dañ ko ciy def quoi. parce que tamit ci carrière lañ nekk. xam nga hip hop bii nii ñuy def moom rek la ñuy def quoi moom lañ yaakaar moom lañ tëgg suñu lépp jaral nañu ñu bàyyi suñu ay affaires yu bëri comme lépp li nga xamante ne da laaj da ko siy def bu jaree ay vidéo 2 millions lañ ko siy def bu jaree ay concert 5 millions lañ ko siy def quoi xam nga ñu ngi liggéey daal gars ñu ngi suñu ginnaaw yëmbal ñu ngi si ginnaaw buun ñu ngi si ginnaaw Fass Mbao ñu ngi suñu ginnaaw sama waa koñ yëpp ñu ngi suñu ginnaaw kon amuñu lu ñuy ragal quoi dañuy ëpp affaire yi yëmbal ëpp bàyyi force mooy loolu. ah en tout cas li mu wax grave na de nee na yëmbal seen affaire du du du duñ ko gis. non xam nga tey parce que man ku ne. wax na ma lu ne mais ba léegi gisuma dara moo tax rab bi ba léegi ñaari nit ngay dégg benn nit ñaari nit est-ce que est normal ngay toog Sénégal di dégg. kenn wala ñaar taf est-ce xam nga ni am na ñu bëri ñuy financé tey te duñ ko gis. parce que financement bi yamul rek yamul rek ci scène bi mais lan la animateur yi la wala lan exemple am na ñoo xamante ne benn clip. ñu def ci 2 millions. mu leen gën a ñu def ko ci benn son am na ñoom benn bit la bëgg euh, financer benn benn benn xaalis bu bëri delloo nga ma ma fi ma doon wax. di wax ak rappeurs yëpp di wax ak artistes yëpp. comment tu veux prendre millions def ko ci benn vidéo te ñëwoo ci tele bi fay commercial bi pour mu tegal la vidéo bi exemple yéen da ngeen di génne benn affaire dugal ko YouTube càng foofu. pour YouTube après fay leen. Mm. dama koy wax ba sonn les télés sont là les radios son la même lee rajo di def émission mbalax boo ñëwee ci rajo bi nga fay nga ne ko dama bëgg mu jaar ci émission mbalax boo xam ne ñëpp a koy déglu mais si soo fayee rajo mais kooku dañ koy wax mu teg ko parce que kooku dafa nekk ci rajo bi pour liggéey rajo bi mhm. moo ni bu fa duggee da koy teg mais boo leen andee tam vidéo fii ne dañ ko bugg muy daw en boucle ngeen fay mhm. commercial mhm. mais saa si télé bi da koy teg en boucle mais yéen pourquoi ab doo leen def loolu loolu laa mënul comprendre man ci les sénégalais les rappeurs sénégalais man loolu laa mënul comprendre bu fekkee bu nga paay maire yi ñëpp xam la mhm. même sa album émission taf da nga war a ñëw fii ne tey sama album rek la ñuy wax mhm. maak yow kese ñu toog une heure trente minutes yi te tu nga fay commercial mhm, yee le DG va me dire dañu fay commercial sa émission rap parce que man on ma pay ici ah yee kon da toog ñu wax sa album décortique ko ba mu jeex à la télé monde bi yëpp suivre la mais lu tax doo leen def loolu comme les français les américains yenn gars yi mais da ngeen benn vidéo benn album def ci cinq millions après ko nii ngeen toog di xaar wecci 2012 maa ngi koy wax à la rajo. dama ko yàgg wax les Guinéens les Maliens tout le monde dañ koy def. mais Sénégal boo waxee rek. Hmm. no dañ ko def ci YouTube bi après YouTube fay ñu après mais ni ngeen di def après ñu toog nii ñu toog ñu bi def nii boo yi di financé après yi ñoom ñoo leen di financé après yéen ngeen toog ah. hmm. yaa ngi ne rab bi kese ngeen am mais il faut ngeen. nangoo dem seeti télé yi parce que télé lumière yi nii kese xaalis la. mais da ngeen di ñëw dugal seen affaire vidéo wala benn son sax dem leen fay commercial. dama bëgg ñu koy teg 24 heures sur 24. Hmm. mais mais rajo da koy teg léegi lan mooy seen tontu ci loolu su Babacar sama nopp nee kontaan na léegi il faut ngeen tontu ko moom nee na man waxuma de te ki nekk si ginnaaw fii nee na ngeen tontu ko ci loolu. waaw bon man pour man euh, loolu yëpp euh, yi ngay wax nii ay chaîne la quoi te mm-hmm. normalement artiste bi communication loo ci mën a investir. daf ko ko daf ko quoi parce que du dee. Mm-hmm. mais Youssou Ndour il est tellement connu à tel point buy génnee dara da nga bu ko neexoon quoi moom bon ci lu ñu xamee Youssou Ndour quoi bu ko neexoon ñëw rek génnee. mais investissement muy def ci communication doo sax comprendre quoi parce que Youssou Ndour soxla na ku ko xool affaire yooyu quoi donc communication loo ci mën a investir doyul quoi mais nag culture bi moom moo manqué fii nii nag quoi ci ci suñ suñu hip hop bi surtout dem seeti télé voilà après tamit euh, am loo fa def pour jël commercial sa kii di fa daw wala nga jël benn émission bi nga xam ne tout temps naan cay day nekk émission boo xam ne dañ koy si sa produit après nga faire découvrir aux gens lii nga job ñu comprendre exactement loolu la quoi et pour man tamit euh, beneen point bi day nekk aussi peut-être côté télé yi aussi est-ce que exactement am nañ secteur bi nga xam ne nii maanaam euh, waxtu bi nga xam ne nii mun nañ ko consacrer ci hip hop comme émission bi est-ce que exactement mën nañ ko am du lundi mardi mercredi est-ce que. bu amee xaalis de bu amee xaalis. comme comme loolu moom moo tax quoi. bu xaalis nii waaw. sax ma ko def ñeneen des femmes yeneen gars yi ñëw di ko def lundi mardi mercredi. luy doxal télé bi luy andil xaalis télé bi on le fait. merci bu amoon bu amoon. oustaz bi nar a def sax dañuy éliminer oustaz bi parce que xaalis moo am. voilà eh, comme comme comme man lu ma doon dégg suñu grand yi dañ doon wax eh, sa son en général pour mu doon daw rajo je ne pas am na lu ñu naan rotation da doon dem am loo dugal mu def sans rotation quoi. Eh, xaw ma xaw ma ban genre jargon la ko télé yi di wooweeg yooyu parce que parce que xam nga rajo fii bëri na rajo yi gars yi dañuy maam du lundi da ngay gis MEF ak euh, DJ Bar whatever waa Walf ñoom ciix dañuy animé kii lundi mardi mercredi jeudi vendredi xam nga ñooñu dañuy tourné quoi maintenant si c'est dans une télévision man gisuma benn télévision ba nga xam ne def émission hip hop lundi mardi mercredi jeudi am na je ne pense pas fii de sañ nañ ko a xaw a xaw a tamit ku dem bay investir ay millions ci benn clip normalement nga fay télé pour mu jaarale sa commercial du du dara ci loolu. waaw comme li mu wax rek. puisque télé yi aussi tamit dañu war yombalal gars yi. Euh, mais il faut ngeen ñeme leen comme li ngeen wax les rappeurs. tey boo xoolee dem ci grand terre osé leen dem ci télé. si tey boo xoolee rajo yi la gars yi gën a ñeme ñun dañuy fay ay sport chaque concert dañu fay ay sport rajo. puisque ñoom ñoo ñu ñoo ñu koy gën a yombalal quoi. Mm-hmm. tey du du metti ñun essayé nañ ko def. xam nga ci yenn télé yi mais da ngay gis que ne day metti peut-être boo ko defee. léegi ñëw leen seet si oh. dara dootul. incha man hip hop Galsen man maa leen ko wax boo di génnee benn son sax seet si leen ma. man incha sama projet dinaa dinaa def lépp mais télé yi day metti quoi. te ba léegi sax hip hop Sénégal am na culture am na ñoo xamante ne tey seen son bu dawoon si benn émission mbalax sax dañ naan kii féeg la <laughs> xam nga ñun loolu moo ñu sonal quoi te pourtant. Euh, a a a tey li ñuy wax rab mission am lenn la quoi yeed ak yeete pour man nag da ngay xool fi mu gën a amee accès nga nga dugal ko foofu quoi ñun dinañ jéem a def maximum ba suñu ay projet ak suñu ay vidéo ñu xool naka la ñuy def ba muy jaar parce que vie aussi baax na like yi baax na mais aussi tamit am na ñoo xamante ne amuñu sax téléphone quoi télé rek lañ xam. waaw ça moom c'est euh, nu mu tudd Babacar Babacar. boo paree rek waaw boo paree jox ma deuxième bit bi parce que ñaari gars yi gars yi nee nañ freestyle yëpp nee nañ man il faut bagage ak kii ñëpp loolu lañ may wax fii <laughs> waaw bu paree rek ma xool gars yi lan borom bagage bu dis bi lu mu ñu andil ak dóob yi ñu bokk benn bagage mooy deuxième bit bi ah non il ngeen def dara parce que ñu fi jaan yëpp dañuy def dara ah oh. ay ca jox ma jox leen ko ma xool jox leen ko donc rek deuxième bit bi waa Toura Advice Music Represent Sicap Mbao Jàmm Gën Kajaar yeah naa bu tiis bi yaa tëri tëri raxlaat tëri tëri karwaay daabalaat nigis daam gëri gëri ñu respecté gembe costa tëri big band member naa squad upside tëlit maa flow no limit never my limit yàgg rax ñu naan boy bi daa timida spirit maa rich rhyme tous naa zéet am back maa birig yee ko di buuse bu lay laaj ana ko dóor yi sa daw nag ko si boori te yëngaluñ si bi sant joxoñ ndaxte joxoñ la sant laa luy bu fees di yëngu ñax du teew fu xam-xam bi ñuul fi sëriñ bi lay wandu leer mooy liggéey ci xam-xam bi ñuul yes it's Chris Boy World Low Wow daf ma jaaxal lu tax ñu bëgg ma def seen concurrent daf ma jaaxal lu tax ñu bëgg masse comme courant musique bi fenul yow yaay fen yow mi may diir mbagg génn nga te feeñoo gëm liir bu def te giiru jàgg ma wax la fan nga paar amoo fan su faan matoo saa su maan sa carrière sama fantu maam bi ci jéggi naa jéego piis su ma tànk naan ma tijji ndaa tijji ndaa gasteen nga tànk naan gëru du cool maa ngi ndënd tey ma bàq rab ma dàq rab ñi fi dàq rab ñi ma dàq rab ñu ngi bàq man dama diis gan tey géro bi gis gan ma indi di tijji daaj yi jox la daaj nga gis ban du fii du fee du fii fi gaa yi dofee fi fay bor jéggi wàttuma teggi si taaj gor bor du am rakk badar jéggi doo rakk gadar damay xare ni kon badar jox la daaj ni ko gar bu diis bi Cypher <laughs> yes dama taar taar yu ma dëkk ci mbedd day baax ma nekk ci nekk baaxaas bu dëkk la teg teg faar muy leer naan mooy jaar jaar di gis ma teg teg kaal muy leer naan dalul for faar du gis ma def ci xur bi la doro di métti ba ak si bi la téen ku njooli di tase fi jara du yomb jafe na nga rafetlu mën a téen ci cadre bind bi amu ma nit ma nekk ci kanam te neexuma bind bi contrôle dem ci tànk yu tëju tase ma ba tëju te neexuma bind kamoon ba teg bi nopp ana ñu namoon di bëj bu baax te dét bi ñu topp ndax ñu la dël yes merci merci ah il fallait mu freestyle loolu. parce que man da ngeen commencé màgget ci freestyle les gars. non never. <laughs> si si si man moom sama tig damay fàtte samay texte rek. ah samay tig damay fàtte samay texte loolu mooy jaaxal. sooy sama tig. waaw fàtte samay texte man je préfère ma impro maanaam man. waaw su may impro moo may daaxal ma ñëw ma ne la dama lay génne samay texte quoi. ok kon yow bokkoo ci gars yi di. Hmm? si damay firi mu ma ne ma impro. moo may gënal maanaam ma ñëw di def ay texte quoi moo gisoo sama texte bi égal bi ko dama ko fàtte. <laughs> waa gis. <laughs> non xam nga xam nga ñun moom peut être. gars yi dañu doon dañu leen tàmmoon freestyle tàmm ba léegi da ngeen nekk ay grand commencé. di taf ñun dañu dañoo am arme quoi xam nga bi mooy ñun dañu nekk classique. tey tey tey classique dafa am lu bëri lu muy def ci yow. Mm-hmm. xam tey boo nekkee classique men bu taxaw nag laa wax quoi. Babacar waxuma kuy kuy taxawan kuy taxawantu quoi mais ku taxaw koo xamante ne ñëpp dañu la nangul da ngay am euh, atu atu bi mooy doo am problème mu biit biit bu ñëw mun nga ci rab xam nga te aussi tamit même boo amul sax texte mën nga toog di rab quoi parce que dañ ko yàgg fooyee rab nañ fu nekk fu nekk ceene nañ fa saay fa nañ fu nekk après loolu day dem ba day nekk ci yow bu ñu la yeewoon ne la rabal wala ñu jox la benn rime da nga mën a nekk à l'aise chance bi loolu la quoi tey boo xoolee booy yi nga xamante trap lañ jàngee rap peut-être duñu mën freestyle lu bëri quoi boo seetloo xam mhm. différence bi foofu noonu la nekk quoi moo tax classique tamit baax xam nga ok di wax gars yi numéro téléphone bi ñu ngi may sonal sama téléphone bi ah waaw yaa ngi noonu affiché international ak national bi yëpp ah gars yi nekk Europe maa leen di bëggee ñoom ñëpp Papis bu baax a baax laay lum. Eh, maa sama gars yi nekk euh, Kaaw. xam nga ñoom mun nañu oote ah ñoom nii. maa ngi koy ziar ak gars yëpp teef xam nga Paris. siyaar gaa yëpp quoi mënuma lim maa ngi leen di siyaar gis naa taxawu bi jàpp bi gars yi ñu ngi si ñu ngi siy jàpp waaw non ñoom waxuma sax xaalis mais yëg-yëg bi nga xamante ne am nañ ko si ñun d'habitude gars yi bu ñu nekkee kaaw ñun ñoo leen daan sonal ak woote ñun ñoo leen daan sonal ak ay message mais man sama gars yi ñoom ñoo lay sax message di la woo xam am suñu temps quoi te loolu yombul maa ngi di siyaar bu baax. ok di waa yëmbal sama waa koñ bi yëpp fi may ceene fépp xam nga cité Madrid Cameroun gars yi dañu dañu sonn quoi waa Boune aussi. siyaar waa Mbuxulaan kon yow am nga du diis sa bopp bi nii de. sa bopp bi war nga bu fekkee ñi ñëpp dañuy li nga wax dañuy xaar ci yow. Fall man mun naa ne bokk naa si artistes yu ëpp problème. bokk naa si artistes yu ñuy gën a xaar mais alhamdulilah bokk naa si artistes yu gën a pare parce que awma pression rap quoi xam nga tey mun naa ne wax ma sax sama album man maa ngi ci yeneen album maa ngi fexe naka laay def ba nekk ci yeneen affaire quoi mais côté boobu moom nice maa ngi xool nu may defee ba job yeneen ay affaire tey ñu ngi xool naka la ñuy def ba teg benn centre koñ ba ñu ngi xool naka la ñuy def ba teg label koñ ba ak Kësinka empire boo yi nga xamante ne parce que bu doon eh, man rek ah. mhm. du metti dimbali nañu li bëri li nga xamante ne jafe woon nañu actuellement yomb nañu am nañ contact yi am na loo xam bu ko soxloo xam nañ fan la ñuy jaar ba am ko mais boo yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci ginnaaw dañ ñu seetaan barab ñii dañ ñu déglu barab ñun war nañ mën a teg dara pour ñoom loolu moom moo tax ñu tekk Singha Empire peut-être suñu daw wala suñu sonn yëpp peut-être ñoom lay nekk quoi. xam nga ma leen di bëgg gaa yëpp artistes yi fa nekk infographie yi fa nekk booy DJ fa nekk di bëggee DJ Omzo suma DJ Mama xam nga ñëpp quoi gaa yëpp. mais daal ñu ngi job ay affaire yu yu rëy incha na gars xaar ak Kisinka Empire ñu ngi jof ay affaire yu big mm-hmm. incha allah dinañ gis ay concert tour actuellement ñu ngi démarrer ak benn concept saay euh, fa setal site setal site quoi dañu bëgg démarrer ak ay set setal incha allah dinañ yegg sa koñ xam dinañ ñëw Sicap Mbao def fa ay set setal def fa saay fa parce dafa jot aussi mm-hmm. ñuy génne affaire yi bëccëg maire yi di romb di ñu gis ñuy rap xam nga maire yi di xëy di dem marché di ñu romb di ñu gis ñuy rap quoi parce que musique bi nekkatul musique booy làqatu di def mhm. xam nga léegi génn na ci kër yi dugg na ci mbedd bi génn na ci mbedd bi dugg na ci kër yi dugg na ci bureau yi dugg na ci fépp ko kon tamit it's time ñu génnee ko fësal ko xam ne ñun lépp lu ñu am lii moo ñu ko may quoi bu leen ma fàtte invité rek mu ànd ak caméra mhm. waaw yow moom wax na rek comme léegi temps bi jeex waaw ok waaw ma man di di di comme voilà si compétition lañ jógee woon euh, mais yow eh, da ngay bokkaat ci man kay <laughs> compétition baax na quoi. waaw mais ku lox doo ko jël. non non non non instant yii bàyyi ma nekk. wala gars yi ñoo ne mënatoo bokk non non instant yii bàyyi ma bàyyi ko parce que instant yii je pense que am am naa lu ma prouvé ci ay compétition quoi. et voilà fu ñu jaar wane nañ suñu bopp gars yi gis nañ Naxawaar et pour man amatul luñ ci tardé suñu temps nañ dem présenter li nga xam ne nii c'est un produit gars yi xam exactement suñu beneen facette quoi. mais est-ce ne mun ngeen def comme One Dip yu trompe gars yi fii. waaw mais loolu yàlla moo. non sérieusement sérieusement parce que. gars yi dañuy bàyyi seen loxo quoi man ni ngeen di bàyyi seen loxo. man ñun man du wax sax man quoi dama naan ñun dama naan ñun. ñun amuñu amuñu man bokk man personnellement amu concurrent te yaakaar naa bagage aussi tamit noonu Fall kii xam naa ko sa copain daa yaru wala saa yi gars yi yaruwuñu de dañuy yeru nii rek saa yi xam naa ko bu baax am na ah. talent bu mën a romb ñi nga fiy wax quoi vraiment gars yi nag am nañ talent diib am na talent wan am na talent gars yi am nañ talent mais aussi cible bi du sax warul sax nekk fii ñun amatuñu lu ñuy lu ñuy concurrence ak ay diib ay wan lyrical mm-hmm. suñu ay gaa lañ quoi xam dundandoo nañ lu bëri xamante nañ bu baax xam nañ ñoom lan lañ mën ñoom tamit aussi xam nañ lan lañ mën mm-hmm. lenn moo fi nekk ñun ñëpp ñoo war a dajaloo fexe ba nu ñuy génnee affaire yi mm-hmm. fexe ba nu ñu koy poussé mu ëpp fexeel ni ñuy def ba mu génn Sénégal mais nekkatul sax ay romb diib parce romb diib amul njariñ ah, xam nga romb benn check wees moo ko ëpp moo ko ëpp njariñ wala benn gisel wala benn artiste bu nekk feneen quoi mhm. xam lu mu wax rek je pense affaire yi nekkatul ci ay romb diw ak diw quoi il faut d'abord saluer travail ñoom bu ñu accomplir ba fii parce que mu ngi nice mhm. boobu ñu bëgg ko comme ñu bañ ko wax artistes yu fi nekk ñoom la tamit quoi mhm. mais voilà pour man ki nga war a ñëw war nga mën a séntu le ni aussi loo xam ne day bees bañ di ranger wu ci chorégraphie bi entre guillemets quoi mhm. comme tout à waa man tam maa ngi béggee sama sama sama sama gars xam nga di gée béggee waa ma ñëw sama waa Gale ñoom Tante Awa Ndiaye xam nga waa BMG dégg jaayam suñu waa koñ xam nga compétition boo koy def ndeysaan xam nga day bëri ñu bëri nekk sa ginnaaw support la te man amoo woon chance wu def émission rajo wala télé ba ma paree ci Final Flow ba léegi quoi pour naan c'est la première sortie ma def ci télé voilà ma profito ci xam naa nag peut dinaa lim juum mais whatever ni ñu si jàpp ñëpp desaan ñoom Baar Gueye xam nga Amara Mahou ay grand koñ yu exemplaire la dëkkal ñoom Assane Kaba grand ama gisee xam nga Idi Boy xam nga Abou Diallo Abou Beke xam nga waa Kajaandu nekk aussi benn structure boo xam ne ñu ngi ko teg foofu macha allah ñoom ñoo boosté affaire yi. ñoo ñoo nekk di ci équipe bi di Diop ñoom Arfan fii ñoom Pierre fii le ménager Ousmane Diop fii ama ah Ousmane Dia Demba Bathily ñoom ñas Sika Mbaaw ñëpp ñoom Mola ñoom Petit Café ga xam nga sama gars yi ñoom Milo Ismaïla Diouf xam nga franchement gars yi jàpp nañ ci jàpp nañ ci quoi boo jógee eh, foofu ñoom advice advice advice musique artistes yu ma fa nekkal xam nga Rosso et sa madame dont je préfère taire le nom xam nga ñu ci doon jàpp ak conseil ñu ma doon jox xam nga advice musique rek conseil dañ ciy jot lu bëri Ross coaché ma naxas waaye def macha allah quoi il n'a jamais ménagé aucun effort ci ci ci il n'a ménagé aucun effort ci ci réussite bu Bac As di nuyu sama benn bro Cheikhou Dieng waa Mbirkilaan xam nga euh, groupe WhatsApp fan si club Bac As ñoom Pape Madi xam nga ñoom ñoom Naaz te mu gaa yëpp defoon déplacement ñoom yi bu ndeysaan ñëwoon paate gaa yëpp ñëwoon def support gaari seen oto xam nga ñoom campus 2S ñoom Mola Mola xam nga ñoom ñoom Bilal gars yi yëpp maa leen di siyaar ku lim na da ngay juum quoi mais franchement jàmm gën si dambaaw ak artistes yi ak artistes yu fa nekk quoi waa Cëmba musique waa structure Thiombo musique maa leen di maa leen di remercier bu baax ci taxawaay bi ak grand Buzz MC quoi. grand Buzz MC yi war nga xam Buzz MC. grand bu ñàkk ki ñaan macha allah bu bëggal avancement bi d' abord bëggal avancement ay raxam quoi. yee ci flow bi daf ñu doon taxawu nice. prend ay DJ Paco. DJ Paco yàgg na ma taxaw ci ci ci flow quoi sama premier sound may déposé flow Paco moom ko déposé quoi. donc ngàcce nga laa ma moom di bëggee aussi gars yi nga xam ne ñu ngi si kaab su ma limee damay juum bëggee ñëpp suñu waa koñ ñoom Amara grand maxu waaye grand exemplaire yu ma nekkal ñoom Modou Sané xam nga c'est Arfan foofu laay nekk tout temps quoi waaw maa ngi a bëggee waa koñ ba cat ba cat bëggee paa bi maire bi parce que man sama première fois fans ñoom la xam nga maire yi am ñoo nekk secteur Takal Prod ABC di bëggee sama tailleur Modou Création Kasinka Couture ñoom ne ñoom ñooy ñëw affaire yëpp ki nga xamante ne dañ koy sol ci ay compétition fu nekk Modou Création aussi noonu di bëggee waa Mbuxulaan sama gars yi ñàkk nelaw <laughs> <laughs> maa ngi leen di siyaar maa ngi bëggee aussi cat ak cat di bëggee waa Grand Médine sama caméraman maa ngi koy bëggee moom moo ma topp fii ba tey di bëggee waa Tivaouane Peulh Tivaouane Peulh mooy sama xama am chat parce que foofu bu boo fu demee bu fa bu ma fa demee damay day mel ni foofu laa dëkk quoi di bëggee sama waa village waa village ba bëggee waa Malika bu waa Géejawaay xam nga waa Pikine bëgg agriculture urbaine ñi nga xamante ne aussi tamit ñoom ñoo ñu épaulé ba affaire yi yegg si fii ba léegi mënoon nañ ni flow jeex na rek après dañuy bàyyi artistes yi ku si nekk def mais ba léegi ñu ngi ñuy pousse ci ñu invité di ñu jox ay affaire xam nga te loolu euh, mun naa ni c'est quelque chose quoi maa leen di béggee di béggee nag ki nga xamante ne dafa rëy ci man muy keef xam nga dafa sonn ci artistes yu jéggi raay xam nga maa ngi koy siyaar bu baax di béggee Bamba yu Paco Prise Paco benn booy El Jazz gis nañ job bi mu ngi naa si Aro Zendeng xam nga Karbala Kalpong gaa yëpp quoi cat ba cat su ma limee du ma juum sax mais du ma matal mais maa ngi siyaar ñëpp fépp fu waaye mënti nekk maa ngi lay siyaar quoi. ok euh, may ma may ma juste rek koy wax. sensei sensei paasu boobu ñoo ah, rabandoo ensemble quoi. gars dañuy gis affaire yooyu noonu mais dafa am benn crew ma bokkoon qu'on appelait Big Bang Squad ñaari copain la sensei ak yooyu bagage yu ñu naan bagage man fa laa koy jëlee ko ñaar ñu ma gën a duwee maa ngi leen siyaar bu baax di siyaar aussi famille Thiam bu nekk mbir ki foofu lañ doon defee suñu répétition yi yàgg leen tànkale foofu ñoom Ana Thiam madame Thiam xama di siyaar suñu waa kër Mbirkilaan ñëpp ñoom Coro xama ñoom Moussa Amé Silla su famille Silla bi yëpp maa leen di siyaar quoi franchement di jaale aussi sama turandoo xama parce que si moment corona bi la mujjee wàññeeku. Ah, nekk benn kilifa bu ma sori woon franchement quoi. waaw doon na ma ñaanal bu baax ci compétition yi. waaw ñu ngi ko tuddee woon El Hadj Mor Khoudia Sy bu bu julee woon El Hadj Malick Sy ba ca mbéyki laan quoi. nekk kilifa bu mag euh, bu ñaanal quoi. ok nan ngeen gisee émission beneen game loolu bëgg ñu yokk ci loolu bëgg ñu def ci. mu ngi doog. Hmm. professionnalisme dèjà yow doyen nga kenn du la wax na naka waar yaa ngi koy teg si code question yi sax na sàpp man xaw ma ne woon ñi daa fi fekk <laughs> non mais si wëndeel nga ñu wëndeel metti quoi. jox ragalu mhm. et yaar yu hip hop quoi franchement waxtaan échange mhm. Mhm. partage de connaissances Ndobine day wax da ngay jël yow da wax damay jël donte yaa ngi posé mais parfois di dugal loo xam ne dañ koy doog a découvrir c'est de des par rapport ak jaar fii rap lu nice et loolu amul lu ko gën a taaru waaye macha allah na gën a kawe mu egg fu suuf sa njott quoi franchement sponsor yeeg ñëpp daw si la te yaa ngi ko ci teg dina ñëw man gis naa a Euh, am na différence par rapport ak euh, ay émissions yu bari. te pour man loolu moom mooy l'essentiel bi fexe ba créer xam nga euh, indi sa benn touche quoi tey yow ku la xool day gis hip hop. même sax boo waxul wala booy dox rek dañuy gis ni kii hip hop la tey tamit sa hip hop sa émission dafa dafa wuyoo loolu quoi gars bu ñu toogee dangay ngay sentir même boo bu kenn waxul boo toogee di seetaan da xam ne lii émission hip hop la. te loolu idée bu nice la aussi tamit plateau bi nice na yaa ngi na xam nga te ñi nga xamante ne peut-être ñoom. duma ma wax sax ay ay ay ay jeunes talents mais ay grands talents sax yaa ngi leen di pousse te loolu lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu saluer la quoi. vraiment fierté la man genre genre émission yi ni fierté lay nekk ci man. parce que dafa ñu bëri am ñu bëri ñi nga xamante ne dañ koy soxla am na ñoo xam ne mënuñu am accès sax ci yenn télé yi mais tey bu ñu gisee genre émission yi nii vraiment fierté lay nekk si ñun xam euh, ñu ngi lay ñaanal comme ni ko sama bro waxee sponsor yi ñëw affaire yi nekk ay big deal xam mooy loolu quoi amin amin amin ah Babacar xoolal bi nga njëkkoon teg ah bi nga njëkkoon teg moom nga may jox ma bàyyi fi gars dem sama yoon man kontaan naa ci yéen de te leen wax nag concert yi may def nii mini concert yi yéen ñaar laay boole. Mhm. ak kii nu tudd visa bi. waaw waaw yéen ñett nag laay def. loolu def show bu métti métti bientôt quoi. xam nga liggéey nañ fi nekk lépp nañ fi nekk quoi. mais il fallait il faut toog waxtaan bi tam il faut muy am quoi. non si da ciy baax waxtaan ngeen génnee lu nekk ci yéen. lan ngeen bëgg wax gars xam ak mm. lan ngeen di préparer il faut gars yi tam dañ koy soxla quoi. di kontaan ñëpp di bëgg suñu waa télé bi yëpp yëpp di bëgg directeur directeur programme waa technicien yi ñoom candum hmm. xam nga ñoom Pape caméraman yi gars yi nekk fi yëpp nga xam ne émission bi ko gën a bëgg sax xam nga man moom instant yi nii damay ñëw lépp lu ma lépp damay ñëw rek toog wax xam nga hmm. kon maa leen di bëggee bu baax si jàpp ngeen jàpp ci émission bi téléspectateurs yi message yi ñuy yónnee di bëggee sama bro yi nga xam dañu fiy jaar di freestyle yal na leen yàlla jàppale yéen ñëpp si tam gay ngeen ñëw toog fii a kawee xam nga hmm. hip hop gal seen dem ci kanam waaw di leen jox rendez Karbala DJ Jibez keneen ki surprise la waaw im waaw concert mini concert boo xam ne moom extraordinaire nañ ko fi def hmm. mercredi prochain incha allah quoi euh, Babacar bu paree rek joxal ma leen bit bi gars yi ko yéen ñaar yes sir wala bi diis bi gan diis bi bu yow gàtt xel weesuwul def don san sang période de nawet bëgg xaru wul naan bagaas la di ñor du kowet décrél ak plume bu ma yàgg das si sa wet yool bu weex xatt deb brim yeeka rab de nawet original boy si kaap mbaaw mooy feeñ ci sama koos tout près de fort nga bëgg ma ñor di boos période du nawet bi bu ma kenn woo ci cons période du nawet temps damay dooni coach seral ngeen ci piste bi nag ma jog leen doox rappeur lam footballeur ne leen óoleen joo ci sama wet fa dàll plastique bëri xam-xam ni xam za mesure drastique man damay warax biit non du mag booy c'est contradictoire ni embouteillage ba xumb ci yoonu yarax bi yor xel bu neex di ko investir ci rab bu dee bi sponsor yi sax mu jéem nañ daw làmb bax mbëri bu dee ku la gën a dof mu la gën a féete yoonu got jàppal ni maa ngi def tout droit ci yoonu raffinerie bon rappeur nga sama kanam da ngay tàng sàngaloo <laughs> nar nga bon fête dana wel rappeur nga sama kanam da ngay rap di ñàng ñàng lu <laughs> yeah bon fête Halloween naanoo lu dul bi teelu rosé di tip sa ci baar yi palaasu rosé la inspiré woon yenn baar yi kon bul may ñoo di bandi yaaram bul may ñoo di yàqu fari fut ak baar ñoo may xaar ci sama bopp xel bi étudiant innocent fët monsieur Tomba Waali Waali ngay toppandoo may dafa fit bàyyi Waali nga ne rab gox bi nga bëgg éradiquer dafa gofi shit bu mun a faj grand bi kay léegi fu sori laa jugee ba gas ñëpp la bett ni ku ñëwee laa jëndi raaj yu bëri duñ ko gëm noo feeñu si sa jëm ba laajal ñu ma jege xam nañ fi ma bëgg a jëm kon fak you pare leen juub du bis bi naka day Ace da koy jug boo soxlaa show and proof your rap moos na nga woo back baaraam to the top man and never ma de lose back kon xam nga good chance sa ndoo dañu optimiste bu dis timis tey nga xar timis ñu jéggi gis jox la daaju daaj gis nga teg timis ñu des timis nangu sa mis gis tey ma sol sa mis test sa mis real represent ni daa ci test sa mis beneen game voilà game mu beneen voilà rab gal seen du dem su may dem beneen woola seen king bi benn woola daaj benn woola ñu jox la daaju ram nga gis jàpp benn woola dañu ah. teg di teg ñu tegg fi tànk du tegale jégg naa ci xuut ki ci kaw nuñ ko tegalee suuf ku ñu ko bégalee daaj nuñ ko yéegalee indi waat beneen niveau jox la daaju ram néegale dañu force li gis ni force li nga kaay nga force li ñu torse li jéggi daaj nga gis lëndëm ñu torse li ñu korse li Michael korse ni ba ñu korse ni ñu daaju ram nga gis sol suñu kos dañu kos si mi dañu yéegalaat ni wa toog si impro sax ah. daaju ram nga gis benn jàpp ni simpro sax am fire men tàkk naa ma ni fire men jéggi dis dañu kaaya men am maani duñu kaaya men du cinq briques dañuy tabax wàccee fondement jéggi daaji gis naan la ni fondement ñu hippi dis teg jox la daaj gis teg nga mistake real represent booy nga mystique ñu indi bi indi be jox la daaj ñu indi be ñu daaju ram nga gis indil a booy ñu indi be dañuy jàngale rab bala ABC hmm. jaaruñu ci école rap ci ABC ñu dañu dis fii nga teg toog daaj yu raam nga gis sa MC ah. rap mu ngay tiktok foog benn bis jox la daaj yi nga sig sok indi beneen saison king ni la kaay nga fi toog sa mbedd bii na fi toog fii ah. lépp tàkk ni tàkk ni gis nga gis ñu tàkkale jéggi ci tàkk ni ni joo laa booy bu làkkale làkkale du làkkale jox la daaj ci nàkkale ah. ñu indi street rey sa maam dëbal la ci nàkkale ñu fii fa fële teg ci see kët tek teg hmm. ci see teg tële teg ket ket kelenta daaju raam nga gis maa king wax ma kan lañ tànn jox la daaju raam tuuti di matte ni melentaan bitch. Uh-huh, yeah. This hood, this street, boy ghetto, yeah. boy sick up, real. Uh-huh, yeah. Sick up bow, yumble No being back ass, yeah. yumble uh-huh, for life. Yeah. Yes. What's up? Ça vient de la rue. Des cours de break, de jazz ou de crampe. les meilleurs dribbles et les meilleurs dunks, Les vêtements que les jeunes se déchirent. Check du point au moment de partir. L'évolution de la langue française. Rider le skate avec un air à l'aise. franchir mur, marcher parapé. Ça vient